no sant mu newele wele njuma no sant mu newele wa ki du kat ba man de debu déggee bi fet ma man de yalla dogal na duma la tapé duma la diglu dana xaar dal boy say fen mom bu ci boy yi fen yi dagat ko boba dana xam fen kat bi fenati na te loluy dox dëgg du lu may bett ci jëm ji Yirim Seck yak wa Yirim Seck mo bëgg a ñëw fii ne ñun dañuy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma nga tiimu këyitam mum karmat de tapé ko ci google ba traduction français ya tim nan ben ben ben ben ben mom mo fi don fen ban nit ñi naw ko mu ne man manam damay wor lu bari damay julli di jema a mbagama yalla ma ya lana ko fen kep ngay def yak li fi nekk lay tek ci mbedd nii la jigéen yoo xam ne da nga leen di nax di waaye loolu doo ca yam jàngal sa doom daw ñu ñu condamné leen ci diir te it yow da ngaa mën a fen moo toogoon ak Maimouna Ndour Faye ca télé 7TV ba naan Maimouna yow xam nga ne diggante fii Cap Manuel leer na ne la yow li ma dégg ci ay information xam nga ne Sonko yow xam nga ne yow yaa gën a xam ne Sonko ak Jomaay nii xawul may mun a ne ah non ah, eh, eh, eh, rek saytaane la ñoo yam loolu tax mu invité ko ñuy mani ñuy dugal manipulation waaw yow waxal rek yow Jomaay xam nga jomay sa xarit ma ne eh c'est mon ne ko de sa frère duul nga de sa frère waaw wax leen rek waaw far yàlla dogal. Sonko jom ay génn Sonko ne ko jamaa yow laay joxañ am xar am xar bu ma ko fi tegoon mu nekk président waaye yow mii laa wóolu yaay man maa yow ne ko yaay man maa yow bu ma fi tegoonu béy béy wane président waaye nag yaay man yaay man ma maa yow ñu Sonko jomaay jomaay moo Sonko jël départ ñu campagne fukki fan jomaay ne man day nekk naa ci gannaawam fukki at du lijjanti nu ma ko tege ci banque bi mun maa fexe ba mu toog ci banque bi moom moom moom dix jours la ma lijjanti dix jours. di suur yu xat tamit yoo xam ne dañoo génne kaso war a dem ci kër ga sangu géej dem ci seen soxna yi ñu tàllal leen cuuraay tegal toggal leen lu neex ñu tëdd ca lal yaatu ya di dégg ñu ne déedéet nañ ko tekki terrain bi waaw ba dàmbooj ba dàmbooj di la nettali la bat de Kaffrine waaw Sonko Sonko fal jomaay fal fal gu ñu ne ñoom ñaar ñoom ñaar nag te rouge bi mom te rouge bi mo wax deug yalla Sonko wuru ci te Sonko moo tax jomaay di yekki ta rouge bi kat ñi ay xel lañ amul kuy wax ak ko amutum xel manipulation deug ku ko man boromam xel lay doon ñi buñ tege bala ñoo tek dara sax ñom ñokay tek tege ñokay tek tek ñokay tek ba bari teggiku lool lool lu am effet manipulateur deug day am xam-xam manipulateur day amum xel manipulateur de yeewu bu ko defee du ko du tegee rek kenn du teggi moo waral ban tegee di di lu aji saar ba ñu wut ku ku ku maanaam activiste ñu wër wër wër wër wër ñu am jom bañ ñu mënuñu ko gis naa ndaw soo xam ne génnoon na fii ne man lañ bëggoon a def activiste ma bañ am na ndaw soo xam ne fii la génnoon wër ne man day dañ maa bëggoon a def activiste bi waaw ma bañ ñu woo aji aji gëmewu ko dégg nga fil ma ba tarfati safut xorom safut géej gi safut yéet safut neex ñu échec ba waral gaa yi accéder sax ci pouvoir bi ndax jéppi gu leen askan wi gën a jéppi gën a xam seeni fen léegi nag yirim yirim set bu mag boobu moo ñëw ne moom léegi dañuy jàngal yónnent bi ñu senegal wax dëgg yàlla nag xaw ma koy jàngal yónnent bi xanaa waa Kër Ndafa waa Kër Ndafa yi nga xam ne kenn mënu cee wax aaya alxuraan bu jub ndax naa fiq moom munta jang alquran jéeri nafiq amna ci ño xamne sax danañ ko jang mu leer ni ci kaw waye nak deug deug bëtin ba du leer waye li ci ëpp sax mom nafiq pour mu wax alquran mu leer du yomb mom mom mom du yomb mom waaw parce que nak alquran xëjut ci bop golo léegi nak mom bam fi di di di chronique di chronique di chronique di chronique di chronique di chronique ba askan wi jox ko bop mune man damay wor guddii loolu <laughs> moom mooy wóor wóor bëccëg waaye go wóor guddeeg bëccëg nee na lay def sax yàlla ne ko dangay ngay fenn la Abdoulaye Wade waxoon ma kisal tegal ko yàq taan nga yàlla nee na man rëy maa ko moom ku rëy rëyul rek ma jox la sab turuxal wàcce ko wàcce la suuxeel la ba nga suufi duma ci yam waaye sa doom sax dañ koy ne ak violé ngay ngay loo loo loo wax du doon dëgg ndax nee nga woon Cap Manuel Sonko ak Jomaay neexuwoon Jomaay ne da ngeen koy yàq di yeggale ah sunu naqaroo de da fi yàgg de ñëw ma ma xool sees bi waaye dama ko wax ne ko na ko xool bu baax ndax man fii dama ko ko yéene bëgg mu toog fi man koy séeréer bu ñàkk caaxaan waay <laughs> la yow de sa fay ji bokkut ak fay fay marem fay sàll mais di recruter ay ay ay mbër di rey ay nit ak le ngor ak recruter kat yow sa fay ji original fay biram penda wagan nga de waw nah, fay biram penda wagan deug mu na na xol ses mi na ko xut da ko wara xul sax nak nak bu ko xoolee eh? man fi ne yene iya na ko ñu ne ko kon legui dimissionnel déet ni manipulateur ñewati nañ di seen xol ya bon ñu ne ko dimissionnel da nga wara dimissionnel ndax bo kan dem wax na xam nga ne yow eh, president bu fi tek dong la pour manam di la xarlo da nga wara <laughs> ma ne gaa gaa mer nañ waaye gis nga saar yi luñ baw baw ay Moustapha Diakhaté ñi soo saa yoo gisee seenu mer saa njóogu sax wax ko nee saa yoo gisee seenu mer na nga xam ne mi ngi baax waaye boo gisee seenu ree bu dul ree ree goo xam ne seen xol daa jeex na am na ree yoo xam ne ree xol bu jeexal waaye boo gisee seen reen bëkk xamal de bon de waaw saa yoo gisee ñuy mer rek. xamal ne ñi buñ doon rus manipulation man manipulation dañ ci moy waye jangale yonenti mom cheikh yirim yow mënoko ndax jikko yonenti bi yoro ci dara do ko bax jigen ñi nga ba pare ku ñew fi naan mohammed ben mohammed ben mohammed ben yow ba yonenti bi lim ay mamam naan bu ngeen yegsee ci aduna ni ngeen taxaw boba day bañ maam mu mel yow jikko bokku ci motax seigne touba sax daal dañ koy teunkeul tënkal nañu maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw bal kulluhum min kaan la sifa hakama hakasul xilmi wal fi siyari muhammadun najlul abdullahi man nasabu li saybati l amdi najlil aasimi l wasari waxwa bnu abdil manaafi bnu xusayi wa saaki bnu kilaabin murattin xaqil fajari kooku moy Serigne Bamba ñun négunu ba yirim seekat bii ñëw dinu jàngal kan mooy maam yonent te koy traduire nag ci Google waaye al Google Traduction per cercare la famiglia di Mohammed per conosco cosa c'è ñun léegi xooluñu loolu ñun liñ dañ ko jàng dégg nga xam ko ci diine jàng ko ci loxol arabiya donte suñuy arab liiru waaye ñun nap nabi nañ ko jàng ko ci loxol arabiya yow nag jàng ko ci loxol arabiya am naa féq képp nga ndax yow ndafa nga xam waaye xamoo yónnent bi xam yónnent bi xam ndafa nag mënta ne da ngay mën a xëy xam yónnent bi doo xam ndafa dégg nga wala nga xam ndafa te doo xam yónnent bi te yow ndafa nga xam lu bon nga xam lu bon ak lu baax duñ bokk benn néeg di fa fanaan Cheikh Yirim yow li nga man yàlla bo nu ko jàngal ndax yow yow dong nga man ak fen amo benn crédibilité boo jàngale yonente sallallahu alayhi wasallam sallam boko boo sey jikko dafa wara a rafet ku gis roy la ci waye sey jikko dafa ñaaw ku bon nga a'azani mimman أعزني ممن قلوا وخيبوا لا يتوجه لنحو المتعب julle wut khassida men ماك mom yar musta julle khassida de len def yefi nit def yefi nit ci la bok ah mbok mu bax mi nak ci khassida yu neex yi batam bu neex bi njang mu wër mu neex ñi ta leer nga xam yow boko ko rek da ngay daanu ndax xasside yi serigne bi lim ci wax torox lu gi ci serigne bi def bëgg yalla ak yonenti bi ci serigne bi feñal ci talif bi wax yalla euh vidéo bu agul. ak taxaway bi di doon taxaw melni luy mandargal taxaway bi julli lolu mom waron na bamuy ñaan mu àggoon suuf bu togon talal loxoy ndax xasside yi ñaanangi ci tagga gi waron na bam to bam ba ba pare mu tok talal loxo yi ndax salali bu masna ne luy yàqum xel ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna and ak ben soxnam romb ci bërëb romb ay nit da depp ak soxna sa ne ko kay nu dem ma para chanter la mu ko ndax lan mu ko damay bañ ni di bakaru ndax man nañ ne ma ah, yonent bi de romb na mo and ak jigen ah mom kay digle neeku ci ñew ne nuyu leen ne leen ah ki kat sama soxna la dama leen koy présenté ñu ne ko ya yaa ay ñun kay amuñu ci yow ben njort bu ñaaw ba nga nuk mu ne déet damaa war joxe bon exemple ya ëlëk man ngeena dem dal di ne kat yónnent bi gis nañ mu téye ci loxob jigen jaar fi di ngeen ta fekk na sama soxna la ki itam non la warona def bi nga xamee ne julli julli na ba pari dafa warona tok ndax ñaan mom lang wo waxe yàlla dégg na ci rawate na nak ñaanuk serigne bu mag bi serigne bu mag bi mo am ñaanam yàlla du ko delo balla faqbal nisaami wa sa'i kulluhu karaman wala tarudda layaadan lii min al amali faqbalhu minni ya fadlan لا مناقصة وغض بغير عناه لي به أملي أشكر بفضلك شعي وارضين به يا من به سرت ساء الدين ولم أمل waaw antal karimu la si arju takrim antal karimu la si eh, ba ca nam ñu je ca kon sëriñ bi ak ñaanam yàlla du ko delloo ñaan ku dal lay doon waaw kon nag kenn ku ne xam na ne manoon na ba muy ñaan mu toog ngappuru sukk mo bëti woom ya ñoo xam ne kii ku sëlmal di ñaan la waaw ah, ndax su dey si ay ñaanam da ciy dugal ay baate araab yi boppam yàlla na nga dimbale Palestine yàlla na nga dimbale jullit yi yàlla na nga def nangam yàlla dimbale nu nangam bay jooy yenn saa yi nag mu taxaw di ko def waaye loola dan naan ah ñi xamul mën nañ cee bañ a kii wala dara waaye bu dee ay way dan naan mbaadu kii di jullee nangam loolu la ñuy wax. nit ko xam ci ne ay la bari ni mbare soppe la non bul indi bi waral lu koy indi tuuma wa ndax bo taxawé ni rek di wax sa xasside yu neex gisunu ñu ngusunu nga ko gisunu ngusu jot dan nan ki mbaadu day julli ci xasila ndax da fay am kat man dégg na fi ben pa bo xam bismillah barki seigne touba lay julle lol nak boko defé boko defé même ki lu mokal mokkal nak ki ku ko mu wax bayyi di da nga xamni ki du man mi di wax bayyi di da nga xamni ki du jeeyi ndax ni mi waxe beuy di leer na neex na leer na neex na maxaarijul xuruf bi ñew na yàqut wenn araf waaye teewut da nga nan kañ lay sujjóot wala <laughs> kañ lay rukkoo nak ah waaw ngay wax legi nak li mom day indi sa bop tuuma te mënoo fa yow a àgg du man àgg fa mënoo fu ne nga taxaw fa di nan nee julli wud de mom leral nako la bam ko daataa leral manon na tok bu togon rek julli pare ñaan talal loxo ñaan yàlla danañ xamni ne di jamia nasirati siratil mustaqim wa bi sha'ihin kun lana bila saqim lakal khitab ya gharib ya mujib ya man bihi la zamani xayra ajib habli wal lillazina qad taalagu bi yahudan bihi li xayri nudlaq iyyaka na'budu wa nastainu fa innaka al-mahbud wal mu'in dalaltana bika alayka ya raqib ya man bihi yanhudahu kula naqi ya sirat al mustaqim ablana hudan bihi yaqbituna man qablana ñaan ñaan ñaan balat ba pari danañ xam ne kii li muy wax sëriñ bee ko bind mbindum sëñ bi doo ko dégg di ko werante waaye nag boo nee roj taxaw jekk lool dañuy jàpp ne kuy julli nga ñu naan laa murid yaa nga jullee xasida di di yàq derub sëriñ bi te sëriñ bi bind xasida sax jullee wut xasida menn mag moom yar musta jullee xasida dee leen def yëfi nit def yëfi nit ci la bokk